lool ca sëriñ Saaliwu laa tàmbale woon wax sëñ sëñ euh, Moustapha Ceytu ne ko dama bëgg nga waxal ma sëñ bi ne ko lii diis na ci man dama bëgg mu yenni ma ci ba mu ko ba mu duggee noppi sëñ bi sëñ bi dana ma wéel Touba loo fi liggéeyal sëriñ Touba suñu borom ci boppam moo lay jàppale yu Cheikh Mamadou Lamine Ba la ñëwee sëñ Moustapha Lakaram wax na ko léegi bokk nañu reer mu ne ma loo fi gis ci lu baax bu ma ci tàggu loo fi gis ci lu baax bu ma fi tàggu loolu wax na ko ma dem defe ne raw naa sëñ Sidi Mokhtar woolu ma ma ñëw mu ne ma damaa bëgg nga jaayanti xam naa ne metti na tuuma yi bari na nit ñi moom ku boot bukki xaj baw la waaye nag damaa bëgg nga jaayante ci sëñ Touba wax ko ñëpp di dégg wax naa ko juróomi yoon ne ko damaa bëgg nga dimbali ma li laay war a suul ma dem feneen ndax euh, metti na euh, ndax wax dëgg yàlla di sonn guddeeg bëccëg yàlla dimbali na ma ma am xame yu wér yoo xam ne wóolu nañ ma li ma mën a waat ci xaadimul Moustapha mooy su fekkonte ne nekkoon naa ci sama mbiri bopp jet privé lay wàccee fi bu wér a wér te la ngay sacrifié ñama Serigne Touba booleel kenn ku ma ca ëppale amul te weddi gis bokku ca euh, lépp ma sacrifié ko ngir jëmi Serigne Touba loolu wax dëgg yàlla ñu boole ceeg di leen jox ñuy naan di la ŋàññi ñaanal leen ma rek ñun ñu tànk ñu ngi koy man te duñu ko sañe yool tànk ñoo ngi ci buum gi ñuy liggéey ñuy wax ñu ñuy liggéey ñuy wax ñu leen di jox naan ñuy wax ñu leen di jox naan